Euh, jërëjëf oustaz Alpha euh, est-ce que sunu sukkandikoo ci alxuraan ak sunna euh, mën nga nu ñëwal ci yool gi nekk ci daje ci ab bërëb bu mel ni Touba di màggal mag mu yor tolluwaayu sëriñ tuubaa ñii xam ko ci waliyu ñii xam ko ci mag mu baax ñii xam ko ci magal lislaam en quelque sorte est-ce que mën nga nu ñëwal ci ngëneel yi nekk ci màggalu tuubaa gi. naa alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah comme ni ma ko waxee sànq ci audio bu njëkk bi jaamu yàlla lépp lu ñu jàppee jaamu yàlla di ko sàkkoo tiyaaba dañoo war a dellu ci yàlla ak yonentaam ñu xool fan la ko yàlla validé ak fan la ko yonente bi validé su boobaa la ñuy accepté jaamu yàlla bi loolu su amul jaamu yàlla boobu kenn du ko accepté dañ koy rejeté léegi nag lii di màggal nit daje benn bërëb di màggal nit ñetti mbir moo ci daje màggal nit màggal nit màggal nit ci façon bi nga xam ne tey ñu ñu bari ñi nga xam dañoo bokk ci ay yoon ñu am ki nga xam ne moo jiite yoon bi ñu koy màggal comme lu ñuy màggalee yàlla loolu day dugg ci bokkaale ñu bari nag ñi nga xam ne dañuy dem di màggal nit daja fen di màggal nit loolu jaamu yàlla lañ ko jàppe parce que événement yi ngay gis fii yëpp nga xam dañ koy tuddee màggal nit dem fële màggal bisu diw walla màggal diw loolu ña koy def dañoo jàpp ni lii diine la te bu ñu paasee dagg ticket dem fa loolu diine la dañ ci am tiyaaba nest waaw lay wane ni loolu diine la dañ ci am tiyaaba fan lañ koy fekk ci alxuraan ak sunna amul alxuraan ak sunna amul fenn fu ñu waxee ni dajaloo di màggal nit day maye tiyaaba ku ko xam rek na ko indi loolu amul alxuraan baqara ba naasi amul lenn ci xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa loolu benn la ñaareel mbooloo bu dajaloo dem fenn ne dañ fay màggal nit ñenn ñu ne sant la sant yàlla ba mu euh, kii bi dellu see ba mu jógee euh, exil dellu si moom la ñuy santee yàlla façon sant yàlla boobu ni ko waxee sànq xamu ko sant yàlla boobu dafa am ñuy dajaloo dem benn bërëb bërëb amul ñu ne la waa dem màkka sant yàlla la dem julli sant déedéet loolu sant yàlla dem julli ji jaamu yàlla la du sant yàlla dem julli ci aljuma dajale mbooloo masana dem dem julli ci aljuma loolu du sant yàlla loolu jaamu yàlla da ngay joxe ji yàlla dem màkka daje fa aj di wër kaaba gi loolu du sant yàlla loolu jaamu ji yàlla dem joxe jaamu ji jaamu yàlla la comme nañu bàyyi différence ñaar yi comme nu ñu tuddee sant yàlla dem dajaloo fenn sant yàlla boobu ñu ëlbati ko def ko màggal ëlb di ko sax def ko pèlerinage ne far léegi pèleri pèlerinage la tudd da ngay dégg ñu naan la pèlerinage te pèlerinage mooy aj pèlerinage mooy aj waaw aj boo xam ne ay nit wala benn kuréel ci ay nit yoo xam ne booleen leen ci musulman wu adduna bi matuñu zéro virgule cinq boo leen ci musulman adduna par rapport ak musulman yi nekk ci adduna bi ay milliards jullit un milliard jullit ak lu teg ñoom maanaam boo leen boo leen génnee ci biir jullit ñi matuñu zéro virgule cinq pour cent ñoom la tuddee loolu beneen pèlerinage ci biir diine l'islam bokkut ak bokkut ak pèlerinage bu mag bi nga xam ne moom la xam comme loolu moo njëkk a nekk bokkaale mooy màggal nit ci façon màggal bi nga xam ne moom lañ koy def loolu bokkaale la ndax ku jal ku yelloo màggal kenn la muy yàlla yàlla rek moo yelloo màggal yenn màggal comme màggal boo nga a màggal yàlla bu fekkee da nga ko jox keneen rek loolu jëmmi bokkaale la ñaari mooy dajaloo fenn benn bërëb dajaloo fa ñoom ni nga xam dañ koo tuddee cant nee yàlla la façon cant boobu yàlla xamu ko ñetteel bi bu ñu xoolee la nekk ci biir lañ fay def gis ngeen ko yéen ñëpp seeni bët ñenn buñ fa demee ñëf ko tëdd ci bàmmeel ba la ñaan loolu di bokkaale bu mag yàlla mu ne ñii faatu tëdd seen bàmmeel in tadoohum la yasmau duaakum walaw samiu mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruuna bi shirkikum ñii tëdd si bàmmeel ngeen leen ñaan boo leen ñaanee duñ leen wuyu buñ leen buñ leen duñ leen dégg buñ leen déggoon duñ leen wuyu yawma alqiyama dañuy weddi seen i bokkaale gis nga loolu yàlla ko tuddee bokkaale ñaan ka tëdd ca bàmmeel koo xam ne mënul dara bu mënoon dara kenn du ko du tëdd ci bàmmeel bi mu ne yàlla mu ne kooku moo gën a réer kuy ñaan koo xam ne ku faatu la yàlla mu ne wa man adallu min man yad'u min dunillah man laa yastajibu lahu ila yawmi alqiyama rakat moo gën a réer koo xam ne day woo keneen ku dul yàlla koo xam ne munu ko wuyu munu ko wuyu parce que ñu ko ñett ci suuf fii ba yawmal qiyaama ñetteel ba la def ci raay mbiir yeeg barkeelu ci suuf seek yu mel noonu yooyu yëpp boo ko xoolee ay bokkaale yàlla la parce que dañ jàpp ni miir bi buñ ko raaye wala suuf si dafa am barke buy dellu si ci ñoom amul fenn fu islam digle barkeelu ci ay bàmmeel ay miiru bàmmeel ak xataa ci bàmmeelu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bàmmeelu yonente bi mooy wax yi nga xam ne moom lañ fay dégg ay wax yu xam ne yu rëy saa yu amee ci ngay dégg ni sëriñ bi du moromu du moromu bi sëriñ bi romb na yonente bi di dem sëriñ bi yomb romb na malaaka di dem ay yowmal qiyaam bu yàlla taxawee ne yonente bi taxaw ne sëriñ bi taxaw ne ma romb yàlla ak yonentaam dem ci sëriñ bi bis boobu yëpp ci bis boobu nga koy dégg te yàlla mu ne wa ida raayta alladina yaxuuduuna fi boo gisee ñi nga xam ne dañuy toog di bokkaale yàlla ak di jël yàlla di ko dendal ak keneen mu ne na leen dummóoyu bu fa dem fa a'rid anhum dummóoyu leen bu fa dem yàlla waxaa ne wa ida marru bil lagwi marru kiraama jullit ñu baax ñi ibaadu rahmaan yi yàlla tuddee ibaadu bu ñu rombee loo xamante ni ay jël nit teg ko place yàlla ak li nga xam ne moom mooy weddi yàlla bu ne romb ndax kàddu yi yàlla la li yëpp fa nga fa yëpp fa nga koy dégg ay alquran bu ko sëriñ bi bindul woon du ma ko gëm wax yëpp koy fekk wax yëpp foofu nga koy fekk ci bis boobu lañ koy wax waaw ay barkeelu ci miir barkeelu ci ay suuf ay jël xaalis di ko sànni ci bàmmeel yoo xamante ni su bëri ay bidaa yu dul jeex la comme la fay xew rek ak lañ fay def rek doy na sëkk ci ne islaam da ko rejeté waxu malaat nag maanaam def buñ ko def diine maanaam sàkkoo buñ koy sàkkoo tiyaaba te yàlla diglewu ko yonente bi salaa sallam diglewu ko comme loolu ku jàpp nag ci am yiw amul yiw parce que yiw yàlla moo koy valider ak yonente bi lii yiw la lii tiyaaba la non yàlla ak yonente moo koy valider waaye ay nit toog créé rek ne lii ku ko def da ngay am tiyaaba ba ñenn si ñoo xam ne ku fa dem sax boo deewee aljanna nga jëm waaw loolu moom li nga xam ne boo deewee aljanna nga jëm kan moo ko recommandé kan moo ko validé du yàlla du yarante bi nga ne loolu ku ci dee aljana nga jëm ñenn ci ñoom la xeen naxe lu ñuy naxee ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen ñoom ñoo leen topp ko day gis ni mbir yooyu noonu amul lenn lu ci wër ko bu fekkee màggal yu ñuy dégg di ñu koy def ay màggal ay nit te ko ay cant yooyu saxul fenn ci diinal islam lu dul ay nit ñoo ko toog créé ko benn doom wala benn sët mooy xëy rek rafetlu ko rek créé ko woo ci nit ñi rek nit ñëpp ànd daal di ciy jublu daal di dem waaw yenn yi nag bon peut-être genre mbir la boo xam ne day dugal day dugal alal di dugal xaalis di dugal yu mel noonu xëy na loolu moom moo tax mais façon yu mel nii amul fenn foo xamante ni ci lislaam islaam da ko validé déedéet amul comme jullit ñi nañu jàng seen diine islaam ñëw na fi lu yàgg islaam dugg na Sénégal ba am ay peut-être sept cent ans yoo xamante ni tarixa amu fi yoon yi amu fi ñëpp ci lu ñu nekkoon mooy alxuraan ak sunna loolu moo nekkoon cosaanu Sénégal alxuraan yàlla yonente bi yàlla yonente bi après nag la ñëw waaw ah. te adduna bi yëpp ñaata jullit ñoom ñoo fi nekk ñaata jullit ñoo fi nekk loo xam ne loolu duñ ko jëfe te ñoom dañuy jël loolu def ci ay ngëneel naan ku ci ku ci teew benn yoon léeg-léeg ne moo gën sa aj ku ci dem jarul ngay aj léegi da ngay loolu ku dem ci genre ma ñu ne la jarul ngay aji day remplacer sab aj naka lay remplacer ab aj aj bi nga xam ne ponk la ci ponk l'islam pilier la ci pilier wu l'islam aj mooy juróomeelu ponk l'islam nga indi loo xam ne yow amul fuñ ko valider du ci alxuraan du ci ay sunna lu ay nit toog rafetlu la nga ne loolu ku ko def day remplacer aj nga teg ko fan ñu la noo diw fa mu àgg ca yàlla waaw dafa mën a àgg ca yàlla ba gën a àgg Abu Bakar bi nga xam ne ginnaaw yonente bi moom moo gën ca yàlla est-ce que Abu Bakar toog na créer benn jaamu yàlla bu bees woo ci nit ñi rafetlu ko nit ñi fekk si ko déedéet Abu Bakar dafa yamoon fi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa la yam ak i saxaabaam diw dafa àgg ci yàlla moo tax yàlla may ko lii est-ce que diw dana àgg ci yàlla ba gën a àgg ci yàlla Omar ibnul Xataab bi nga xamante ni ginnaaw yonente bi ak Abu Bakar moo gën ci xeet bi waaye Omar musul toog créer ab jaamu yàlla bu bees wala créer benn mbir woo leen ci ne mbir mi kat boole ma ko defalee wala man damaa àgg ci yàlla wala Omar dafa àgg ci yàlla moo tax ku ko defal lii da ci am lii déedéet loolu amul comme ñu ne leen façon jaamu yàlla bii da ngeen ko créer déedéet loo xam ne da nga ne nit ñi ko def am tiyaaba noonu loolu day fekk yàlla validé ko yonent bi validé ko mais islam munu fee jóge yonent bi sallallahu alayhi ay siècle siècle siècle siècle siècle ba jamono ji yonent bi jógee fi saxaaba yi jóge fi indi benn mbir bu bees ne loolu soo ko defee boo ci dewee dugg aljana ana preuve am ñu ne la waaw diw de moo ko wax diw benn diw ma ko amaana sax benn gàmmukat la wala benn waxkat la moom mooy toog rek wax ko loolu diine diine mooy yàlla nee na yonente bi nee na saxaaba yi jëppoo nañ mooy saxaaba ñu ànd ak yonente bi ndax ñooñu ka leen jàngal mooy ko yàlla yoon yónni kooku moo leen jox diine comme lu yàlla waxul ni diine la du diine fii ba yowmal am doonte dañ koo jàppee diine lu yonent bi waxul fii ba yowmal qiyaam doonte dañ ko jàppee diine du diine lu saxaaba yi jàppewul diine fii ba yowmal qiyaam du diine doon nañ koo jàppee diine kon loolu mooy li ma xam xam ne foofu incha allah lu jub ci wax ji ñu xam ne ci borom bi lu ci dëgg ñu xam ne ci man la wallahu aalam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax oustaz Alpha si leeral yi nga xam ni leeral nga ko euh, di remercier mbokk yi nga xam ni ñu ngi doon déglu waxtaan wi di leen jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah